araf yëpp yàlla na nangu ndax bu araf yi nangoo rek sunu lépp nangu ndax araf yi sun borom nangu na ko ba noppi waaye mu nangoo ci ñun loolu mooy mbir mi kon yàlla na nangoo ci ñun yàlla na nu sëriñ bi ni araf yi nangoo yàlla na nu sëriñ bi nangu leen noonu euh, di sant waa daayira bi di sant waa dëkk bi di sant góor ñi di sant jigéen ñi euh, di xam leen rek ne tey waxtaan wi danañ ci jukki ay diggante danañ waxtaan ci xasayit xam naa sax du doy ndax lu kenn dul xam li nga ci xam rek ngay wax te xaside yi moom boroom lim ci wax géej la goo xam ne amul fa mu tàmbalee amul fu mu yem danañ wax it ci jamono ji ndax fim mu nekk nii dafa am lu am te kenn ku nekk war nga ci delloo si sa xel bu baax a baax baaxuk sëriñ bi kenn weranteetu ko li mu man kenn weranteetu ko léegi kay li ci des mooy ñun sunu bopp te dafa am boroom xam-xam bu wax ne dee ci boppam doonul lu metti ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg day am yàlla na yéex waaye nee na loo xam ne lu yàgg-yàgg day am jarul mettit nee na waaye am na dee goo xam ne dara jaru ko ñu ne ko gan dee la mu ne di dund te lu baax ci yow di dee xam nga ndax dégg ngeen li ma wax di dund li baax ci yow di dee ndànk ndànk ba dee ba jeex te yaa ngi dund ah, loolu nag li koy def dafa bari ñu bëgg cee waxtaan ndax ngëm dafay xomaat ngëm dafay ruus ngëm day dem ba mu yàgg mu yàq te danañ indi li nga xam ne moom moo koy waral ba nu ba nu teewluwaat suñu digganteeg sëriñ bi ba xam li ñu ci war loolu lu lu lu mat a bàyyi xel la ndax jamono ji ñu toll dafa bari loo xamante ni dafa song lislaam buñ ko waxee nag dañuy daal di xalaat ne ay nooni lislaam yu jóge feneen la déedéet bari na loo xam ne noonu lislaam la te ci waa lislaam lu jóge waa lislaam ñoo ko bay bayal ba loolu taxaw di xeex ak lislaam kon niti lislaam yi ni ñu war a def mooy teewlu bu baax a baax a baax a baax a baax lislaam te ci biir teewlu boobu ñu bàyyi xel sëriñ bi bàyyi xel nan lañuy ñuy def ak moom danañ ci àndi ay gindiko yu bari fàttali lan mooy ak taalibe gis nga xasida danañ ci wax lan moo tax jàngkatu xasida yu jëkk yi buñ daan jàng lu ne ngay gis lu ne la gis lu ne la ñu mënoon te léegi nii mën ngaa jàng junni xasida te ku la gis du am genn soppiku ci yow sa jëmm kenn bu ci gis lu muy xemeem te soo waxee ñépp xeeb la soo jëfee ñëpp xeeb la kon ana xasida yi dinañ ci waxtaan daal ndax lool lu mat a wax la ndax jamono ji ñëpp dañ jóg jëm ci bëgg xasida ak bëgg sëriñ bi te it sëriñ Cheikh Fall Baye góor dafa am lu ma waxoon dafa ma ne woon baat bu neex ak mën a jàng amul solo ak bari looy jàng ma ne ko lu am solo mën ne ma làmmiñ wu saf dëgg làmmiñ wu saf dëgg ma ne ko luy làmmiñ wu saf dëgg mu ne ma xasida balaay gaaw dëgg dëgg ci nit nit ki bàyyi fen ah gaa yi mbaa dégg loolu ndax nee na làmmiñ wi ngay jàngi xasida yi bu dee moom ngay def saa boo noppee dëkk ji fen di fen ba ba nga koy jàngaat neena na yow bul bokk ci ñu yaakaar ne mën ngaa jàng ba yàlla nangu kon dafa am yoo xam ne lii danañ ci waxtaan ci njëlbeen ñu xam loolu lan moo ko lan moo ko lan mooy lan lañ ci war a def ak ni ñu ko war a jàpp ndax jànkatu xasida yu jëkk yi daawuñu fen seen làmmiñ dafa saf dëgg dëgg la seen làmmiñ saf ba buñ jubee xasida yi benn képp buñ ko ci jàngee suñ borom fekk leen ci kon loolu yëpp danañ ci waxtaan